ربه وافقت كل مرسل رفع الرافع فوق القرباء من افتخار بمنى لم ترما سعادتي قبل وجود الخلق ثبتها وكنت لي بالطلق الي هذا الله ما لم يظهر لكيس مطالع مهدر بركتي واسعة وباقية بقاء ملك ذي الهبات الصافية جعلت فطري فوق كل صوم جعلت النوم كقيام القوم عذبت لي قلوب قوم آمنوا يا من عذبت لي من لم يؤمنوا إلي قاد الله علم الأولياء كالأنبياء ورسلي في ديليا إلي قاد الله سرا دمرا منتهن حالي وخاب الأمراء لاقي القلوب والأبدان تحبني البيضان والسودان أكرمني بالصلوات الخمس ورمضان حاليا عن رمسي أكرمني بالسر المخفي ثم انقاد خطي إلى الكرسي قصائدي من معجزات منتقى صلى عليه من هداه واتقى قصائدي من معجزات المنتقى صلى عليه من هداه واتقى كتابتي فاقت شيوخ التربيه وكل خير وشيوخ التغطية قصائدي هاجت قلوب الأنبياء مع الملائكة عند ربي إذا كتبته دس عرش الله جل وغابت كل رجال الله إذا كتبته دس عرش ربنا وسبح جد العزيز في البناء إذا كتبت أو قرأت جاء إلي ما يحقق الرجاء كنت أبي أتوي لن برتي لورك تيجي تسمع جتاي بي بو في جيرك yàlla sukkandiku ci baaxu Serigne Touba ba jéggal nu sunu lépp lépp nag. Moustapha Mbacké Abdou Latif dañ ñoo booleeg moom muy sunu xarit di sunu wëlëre ñun yëpp di suñu mbokk di imaamu ji euh, jumaa daaru. te boobu maa ngi Dakar mu ne maa bëgg fulk bii nga yor yaa ngi waaye dinaa la boole gone yoo xam ne yu jàmbaar lañ li jiitu mooy Moustapha Mbaye. boole maag moom boole maag ñoom xalif ne nag ba tey sëñ ma soxna loo mooy seen magum daay moo ko yëg ñu nekk ci nag di ko ñu njëkkee versé xëy na deux cent mille la woon wala trois cent mille hmm. moom ñu njëkk a versé ndax booba dañu naan cotisation bi gën a gën a gën a bari quinze mille la woon sëñ Moustapha moo joxoon exemple moo joxoon quinze yeneen ñi ñii mille francs booba da euh, jigéen ñi dañ leen dañuy laaj fukki dërëm wala ñaari dërëm wala ñaar fukki dërëm loolu rek lañ doon laaj ñaar fukki dërëm nag boo ko limee boo ci bëggee ñeenti fukki junni deux cent mille boo bëggee mu mat deux cent mille da nga cotiser lu mat ñaari junni jigéen ñoo joxe deux cent mille jii nag am na benn jigéen rek boo xam ne bii ak mbooloo mbooloo mu tuuti indi na ñeent fukki jën kon jigéen ñi sëñ bi ñun ay soldaar lañ waaye bu doon armée boo moytuwul euh, suñu sergent jigéen lay nekk. am yi li may wax saa su ne rek sëñ Xalifa Saar sëñ Xalifa dafa lilu Saar wax na ko Saar ma sañoon damay toog ngeen di waxtaan rek. te àgg naa ca léegi nag téere bii kayit bi sëñ Mat Lamin Jóob la nga def ci taarixu jumaay Tuuba nga xam ne yàlla bi Cheikh Moustapha di fondement ak Tuuba ku fa teew soo turam ci téere bi waaw ku fa teew rek ndax moom moo ko fekk moo ko teewee day def ci tudd ci yenn kilifa yi faaw mu am lu mu wax ci kilifa booba door a jàll mu ngi sëñ ma tamit nag baaxam li muy wax nag ba asiti sëñ am satu jaxale loolu lay wax door bu ma ciy teg ma wax ko ci sëñ Basiru mu ne wa mi man xaalal saydi am satu nu sayx Mamadu Jaxate al mbakiliyu wa am satu haasa mi man taftaxiru bihi adratu sayba say sabyan lam yamlaxul ulma taqiyan naqiyan mustaqiman qabla alxaybati وفي الخيبة الثانية كان مع السيف دائما لا ليس من يقيم ويرجه وكان إخراج القصائد إساك بيده وهو أول من استعار بكتاب بكتابتها حتى كتب الفلك المسؤول kon moom mu jëkk bind sëñ ba furk masool loolu si ma demin bind bind naa ngi nii bi yeddi yi moo ko njëkk bindal sëñ Tuubaa ci loxo wa urju satoo samaaniyatu alaafin ka abwaabil jinaan nee na lu jaay rajas rek baxul bu ñuy wax rajas juróom-ñetti junni la jàkkaarloo bunti àjjana wasxaku mi atin min shaa'ir góor boo leen daa ji ci des yëpp bu ñu ko boolee suñu demee ne juróom-ñaari téeméer mu jàkkaarloo ak bunti sawara kon ful ku tege mooy tëj sawara bi tijji àjjana kaaba bi nii daal xaye dafa jàkkaarloo bunti nii daal wa yasiru fil adadayni al fathu wal qalb mu ne kon loolu mooy mbóot bi sëñ bi da ciy tijji àjjana di ci sawara moom ful ku ma sool woowa awlu man kataboo li saye suñu ma demee ne sëñ Amsatu moo ko jëkk a bind Sëriñ Tuubaa wasaani Mohamadu ibnu Babacar ibnu kon dana ma fukk ak juróom benn ba dugg juróom ñaareel ba mu am ñaar fukki fan door a dem waaye bàkk bii la wax moom ndax bu ñëwee fi dem sëñ laaj bi fekk bayt Rasuul la nga nekk am ak moom fukki fan ak juróom mooy benn bis yonent bi bu nekk am at laa koy màggale kon fukki at ak juróom laay am ci bàkk bii door a dem Tuubaa maa ngi mbind moo xam ne wax naa ko fu du benn du ñaare suñ ma dem Diop Dagana moo ko bind sëñ bi waa tànkam metti na da cee gaañu ci biir kër gi yonent ko ànd ak xulafaawu rasidiin Seydina Ababacar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali xulafaawu larba ñeent yooyu la yonent bi àndal ñu wàcc ci biir kër gi di seet si sëñ Tuubaa tànkam metti sëñ bi yonent bi jël loxoom raay ko ci tànku sëñ Tuubaa ba doon métti mu seen sëñ mën limin wax na ci mbind ma ne wallaahi sëñ Tuubaa war na ma fa yonent bi tegoon loxoom ca tànk ba mu raay ko tànk ba wér loolu kon fii li fi nekk nit dana am du am lu ko jom waaye mën naa am lu ko moo tax saa su ne damay wax naan nan ñuy déglu njàng mi fóotu ñi bu ñuy jàng njàng yi bu ñuy jàng nañ leen déglu nañ bàyyi xas nañ ci yéen ñi saa su ne ma di ko wax xam naa ñu bari danañ ma ci mere waaye man sama yoon saa su ne damay wax naan nañu dolli war ko kër gi bu ñu lay mere suñu kër yi bopp wax naa ko ci ay télé ak ci rajo ku yóbbu may ne ma ku yóbbu sama yoon man dama li ma yéene saa bopp laa yéene ñëpp bu fekkee ne da ngaa yor dog boo xam ne yow da nga koy jàng jàng sa kër ba noppi fii bi nga ñëw jàng xasida si xasida sëñ Tuubaa yi moo la fi indi te ñii li ñuy nettali xasida sëñ Tuubaa la naan waxi sëñ Tuubaa la ñuy moo la tax a jógee sa kër ñëw si ko kon buñ ñëw di yori kurus naan da ngay yër dëkk wala nga yori téere naan da ngay jàng moo xam alxuraan moo xam xasida buñ yor dara toogal te jàll di mag ñi daawuñu dégg daawuñu nga bu téere bi sëñ Tuubaa loolu du taalibe te nun nag ak taalibe suñu alal tiyaatu xil bi tabaru wala tabaru tiyaatu alal soo jaayee xam-xam mu lamb waaye boo jaayee teggin du lamb teggin nag mooy taalibe kon nag fonkaa suñu taalibe kër gii nañ ko jox ak cërëm jataay bi ñu jox ko cërëm lii fi xew léegi kat ñun bari wala gisuñu woon xew fi ci jamono suñu Basiiru nag noonu ko woon ko ci jamono suñu Musaa Basiiru ñoo fi moom dugg na woon am na lu fi fekke am na lu fi xamit waaye nag ñoom ñi yi buuf bàyyi ko fi gën di moo gën de def ji sëñ bi waa teg na ci bëtam mu ñëw jaareem nag dëkk bi mu defaraat ko saa su ne damay wax naan jamono yooya li tàmbalee fii ba ba ngay dem kër maa koy saa lépp ay néegi ñax lay doon su ko la ko ma saa am fii da nga gis lu mat naan tamit kër ca gannaaw tàmbali di génne seen bagage fii ngelaw li jublu moom ngelaw dana ji la sawara we rek mën naa lakk naan tamit kër ndax lépp am yàlla waaye suñu basiir toog fii woof ñëpp ci saa yi ak ci baat yi su àjjuma mooy jiite ci jumaa ji kenn ku la yàkkam fi àjjuma ñëw ndax ku la mën a jiite ku mën a doon doon sëñ Tuubaa jiite la moo la tàqal rafet ñëpp waa mu ñëw sëñ Basiru nekk ci kanam jaam yi di leen jiite ak ñu kon nag tabaski mu di ko jiite moo jiite góor bari moo jiite tabaski su génnee bàyyi àll seen fetlam bi nga daan dégg ne sëñ Basiru génn suy génn rek mu mu mu dóor baax bàyyi ko tànn ndox ko ca bàyyi dem ba fay jàng xam mille bi su weeru koor teroo bàyyi ba xaar la muy na ndaawa lépp daal di suñu kër ko mu tiim sëñ bu siiw suñ jullee ba noppi bu dee ajjuma bu noppee ba ngopp ci ba njàng ba àgg mbaar mee nga xam ne moo nekk ca ca biir fi sëñ Fallu di toog buñ naa fi laa ba noppi mbaar mu tabax moom mu ngi doon gannaaw wet yi ma féete nii nii am ñaxa fa ne woon néegam dafa fa nekkoon fa la sëñ Basiru daan jullee ñaari rakka su jullee àjjuma ba génn foo xaay dem ba dugg ci biir néeg ba bàyyi baat di jël bari sotti teg ko nii ci bunt bi gàll ko mu julliwaat damay nafile ba noppi bu woppee dara wëlbati ko nit ñi nuyoo door a tàmbali siyaar bu wér koor teroo Cheikh Abdoul Basir bu takk sant ne mu sol jubaam boobee ak yére bi tedd ya dal di ñëw nag ci néeg bi sëñ ma limit ñëw dagana nga bu ful ku mas man toog jàkkaarloog moom di jàng xasida yi mag yëpp góor góor ko tàngee fa ne la xam ne foofu la sa doom kenn ku ci mës a génn da ngay defe ni kii sëñ ma si yoo bàyyi ko du faat ma jóg bi ne laa bu ful ku ba am ci dégg naa yi gën a jafe mooy sanaaga ak berber moo gën a jafe ci làkki naar te loolu ba ko sëñ Basiru daan làkk te nekk ci biiram néeg da ngay wàññi kii wax du nit ku ñuul am naar kon noonu la mel jàng bu jeexal tàkk bi mu ñëwee fii nag ci quarante cinq la tàmbali nag defar wu faak waa daari kaamil bi mag yi seen xol mu diisoo mu ñoom ci saay ak ci bàyyi dëkk bi ma ci xotaan dëri ji dëri njaay ko xamoon fii ba ba koy def Bamako ñu laa dem jox salaat ak li ci ak lépp fii ba Bamako bu tool yi ñoree borom tool yi dañuy yebal seeni soxna ñii seeni ñu surga ci gaar yi fii ba Bamako di def ay colis di yónnee li daan ñor fii amul fekk fu mu ñor day ndox mi ñu koy sàkk waaye nee naa ne ndox mi day sëñ Tuubaa gis na ko man de li ma gën a doon mooy ñu def ak dex gi mu gën a baax gën ndax gàtt bi sëñ Tuubaa teg ci yi sëñ Tuubaa teg kon nag sant gi day gënal dama amul doole nag kaw ma kàttan waaye su ma amoon kàttan kenn du ko sax dañ koy dolli wax ko mu gën a xóot gën a baax xam ne ndax kii nga ndox la moo xay saa yoo ci tegee sa bët dana leer na sëñ Tuubaa gën bi moo gën de dex gi sëñ Tuubaa teg ci bëtam mu ñëw njëriñ nag dëkk bi mu defaraat ko saa su ne damay wax naan jamono yooya li tàmbalee fii ba ba ngay dem kër maa koy saa lépp ay néegi ñax lay doon. soo ko lakk ma saa am fii da nga gis lu mat naan nga mi kër ca gannaaw tàmbali di génne seeni bagage fii ngelaw li jublu moom ngelaw dana ji la sa war a we rek mën naa lakk naan nga mi kër ndax lépp am yàq la waaye suñu bés yi toog fii. woof ñëpp ci saayir ak ci baati su àjjuma ñëwee mooy jiite ci jumaa ji kenn ku la yàkkam ci àjjuma ñëw ndax ku la mën a jiite ku mën a doon doom sëñ Tuubaa jiite la moo la tàqal am ngeen ñëpp waa mu ñëw sëñ Basiru nekk ci kanam jaam yi di leen jiite àjjuma côté tabaski mu di ko jiite moo jiite góor ak moo jiite tabaski su génnee bàyyi àll seen fekkoon ki garaat dégg ne sëñ bi suy génn suy génn rek mu mu mu góor baax bàyyi ko tan ndox ca bàyyi dem ba fay jàng xam yooyu ñuy wéy dañ ko daal normal wax ne wala nga ko xaral di jàng da nga fiy jóge te moom ma gis buñ ko bind da nga bi te muy dund ba léegi sëñ war dafa xanaa ah, ñoo ne dañ koo defut ci ndigal moom de du ko wàññi dara waaw kon ku mel ne sëñ Modou Fatma Diop Baye Diagne Diop mu baax moo ca kaw la jàmbaar jooju nga xam ne mës la denc xaalis ci jibaam lépp ca rot bi la koy teg rek loo ko joxe rot bi bi muy toog ca la koy rot la sëñ Mor Bay Cissé dama woon sëñ Diagne Diop saa yu ñëwee kër gi ubbil ko bu fi bëggee fanaan ubbil ko néeg bi mu fanaan waaye du ko fanaan noo waaye sëñ Diagne Diop su ñëwee ubbi ko kër gi mu tëdd bàyyi sëñ Diagne ko ñëw sëñ Basiirou Seck sëñ Maxu Jaka Jaka sëñ Maxtaar Kumba la Alaaji Mat Baabu ñooñu nga xam ne la way kadoo doon wax ne seen mbir ma bu ñu la ko xibaaroon tey nga fekk ñu seen ñébal téeméer delloo ko maa sunu waa di yàlla teew ko bàyyi Ablaye Ñang secrétaire sëñ Basiirou Mbacké jàngee journal bi Baye Ablaye danaa def bu xëyee ci ndigal sëñ bis yu dem dëkk ba jënd suuf ndax tubaab yi ñu daan jaay wala ñu di ko wax ñu di ko def ci suuf daal lañ koy soo demee dëkk ba jënd suuf daal ñëw toog ko ko ba mu jeex li ci tubaab yi wax lépp suñu Ibrahima jàng jàng surraal bi ci kanam sëñ bis yu daal di tudd yàlla ko lu bi lu wax mu ne ko ah nee na sa gars yi leen sagaay bu subaa ñu rey leen alal ñu mët ba boobu ñu mu àndaloon ne ko bu subaa ñu rey leen ne la subaan bi wax mu ne ko gën a lan mu ne ko wala wax mu ne ko lu ma bëgg ak li ma wax man seetal ñi ci buntu kër gi nga woo leen ñu ñëw mu génn seen ci buntu kër gi woo leen ñu ñëw damaa tax yi génn seen i tur ñëpp bind naa ko ñu mu ne ko waxal li nga waxaatoon li subaan bi wax wax mu ne ko nee nañ bu nëgë ni si subaa ñu rey sa gaaya mu ne ñooñu yéen kan kan mooy seen sëriñ ñu ne ko nu dee woon yaakaar nag sëñ bi suñu leen suñu reyee sama gaay yooyu bu subaa wuti leen beneen sëriñ. incha allah jërëjëf. wuti leen beneen sëriñ wuti leen beneen sëriñ jërëjëf. kooku mooy Cheikh Bachir. waay waay jërëjëf borom mbir maa ngoo. waaw waaw maa ngi gàtt. ba wax ko des dañu leen a bàyyi. kese kese kese ku mel ne sëñ Modou Khari Diop sëñ Modou Mokhtar Diakhoum Poul Baye Cheikh Dia Baye Xayar Dia sëñ May Goumba la. li ne sëñ Ba nii ngeen nekk de lu waaye nag daa bokk ci la saaba yi àndoon ak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañ ngeen daj ci la te ñoom nag lañ dajoon moo gën a metti nii ngeen daj is ko fi la fii sa nit ñi dee ndax ñoom rey nañu leen ci yoonu waaw li xaj dina am seen i dër sakkana leen wasul ba amoon nangu na seen i alal wax ñoom ñu jéerim génn nañ leen seen i kër fam yo sat an sayin an na tamit ànda fa subati illahi iyahu wala taxu benn bés ñu ma sa taxaw wala ñu dellu gannaaw te leneen tax a jóg yàlla takk leen ci alquran takk woo xam ne ñoom rek ñoo ko jagoo takkoo noonu li fuqara ay muhajirina la si na xur ñoom ñu diyéer yi wa amwaalim yëpp taxoon na fadalan min allahi wa ridwanan wa rasulullah wa rasuluhu ulaykum musaalixoon sëñ bi leen amma alimtu anna ulayka abahum fi diini na ngeen xam ne ne ñooñu yàlla nekk ci alquran ñu leen seen ci diine kon mun saaba yi a war a roy ndax suñu tubaab ne ñooy suñu bàyyi ci diine kon ñoom lañ war roy saaba yi nag soo bëggee xam nañu nekkee woon wax nañ la bari ci seen melool ñoom saaba rasul yooyu wala nga jàpp suuf ba mu jëlaat la doon wax ak saaba yi ni ñu war a def yoonante bi ak ñu ko war ak li ñu war a doyee moom ak li ñu waxee moom jàngalu xabaam ba nga jàng suur lu julaat kon yar beeg teggin bi nga leen war a jox da ko mat a sëkk wala nga koy maas Cheikh Ibrahima Fall Babou Mourideen ndax moom jàngal na ma ak tey bi ci niñ ko war a defee ci jamono lu nekk te looloo muy jëriñ nag lu nu loolu du jëriñ ñun tabax yi du nu jëriñ dara wata yi du nu jëriñ dara mu ngi gëstu njëriñ du nu jëriñ dara du suñu alal baax na de waaye du suñu alal ak teel bi nag mooy suñu alal nan ko am nan ko wut ak teel bi mooy suñu alal lu dul ak teel bi rek ak teel bi ku gën sëñ bi waa waxoon na sëñ Masamba Diop Samb ne ko Masamba mu ne ko Mbacke mu ne ko a naa ñëw fii ki man nekk fii diggante tisbaar ak takkusaan boo fi jógee barke toppee fi boo xam ne a waa ngeen di dàggoo mënees naa ñëw fi man diggante takkusaan ak timis soo demee wërsëg toppee la fi woo xam ne buntu ba mel ngeen di dàggoo waaye ma sàmm mu ne ko mbàkke mu ne ko ma sàmm mu ne ko mbàkke mu ne ko ma sàmm mu ne ko mbàkke mu ne ko mënees daal ay juddu nekk fii fi man bi te wërsëg ci te mooy li am njariñ kon atteeli bi mooy li am njariñ même góorgóorlu ci suñu teeli bi tas bi sëñ Tuubaa yii yëmut ak dara dara lu mu yemal amul tas bi sëñ Tuubaa yëmut ak dara jëmmi sëñ jëmmi Sëñ Tuubaa la kon ko fonkaat bu baax dundin woowu nag nga xam ne moom la ci gànnaar bi dama tàgg woon mu ne ko la xam nga xam na ci gànnaar mu ne ko waa wax ma ko mu ne ko demal jëli ji ko sëñ bi bu yem moom moo dem ci ndigal la Sëñ Tuubaa gànnaar jëli Sëñ Basiiru indiwaat ko fii ci biir kër gi ba Sëñ Tuubaa laajee Sëñ Basiiru loolu wuti gànnaar mu ne ko xam-xam rek nag dama ko bëgg lool te li ma ci bëgg amaguma ko sëñ Ba di ko toogal fi man warloon naa la li nga ci bëgg lépp nga am loolu moo waral bi mu doogee fi moom ko matériel yoo xam ne kenn mësu ko ci àddina ndax naar boo xam ne sëñ Basiru ci réew yi naar ya ngir bëgg a toog ci yow naar ba ñëw na njëriñ rek sëñ mu jàng ci ñoom ba xool bu mu bëggoon a xam ci xam-xam fii la ko xamee ba àgg ci dégg naa yi gën a jafe mooy sanaaga ak berber moo gën a jafe ci naar te yooyu ba koo sëñ Basiru daan làkk te nekk ci biiram néeg da ngay wàññi kii wax du nit ku ñuul am naar la kon noonu la mel jàng bu jeexal tàkk bi mu ñëwee fii nag 45 la tàmbali nag defar bu baax waa daal di gàddu kii mag yi seen xol seet mu diisoo mu ci saa yi ak ci bàyyi. dëkk bi mu ci xotal dër yi dëri njëriñ bu ko xamoon. fii ba ba koy def Bamako ñoo laa doon jox salaat ak li ci ak lépp fii ba Bamako bu tool yi ñoree borom doole yi dañuy yebal seen i soxna ñii seen i surga ci gaar yi fii ba Bamako di def ay colis di yónnee. li daan ñor fii amul fenn fu mu ñor te ndox mi ñu koy sàkk waaye nee naa ne ndox mi de sëñ Tuubaa gis na ko man de gën a doon mooy ñu def ak dex gi mu gën a baax gën a dund ndax dex gi de sëñ Tuubaa teg na ci bëtam waaw dex gi sëñ Tuubaa teg na ci bëtam kon nag sàkk ji day gënaluma man dama amul doole nag aw ma kàttan waaye su ma amoon kàttan kenn du ko sàkk dañ koy dolli wax ko mu gën a xóot dana baax xam ne dex gii nga ndox la moo xay saa yoo ci tegee sa bët dana leer sëñ Tuubaa teg nga ci bëtam bàyyi ko fi gën di moo gën de dex gii sëñ Tuubaa teg nga ci bëtam mu ñëw jaareem nag dëkk bi mu defaraat ko saa su nekk may wax naan jamono yooya li tàmbalee fii ba ba ngay dem kër maa koy saa lépp ay néegi ñax lay doon soxla ka masaa am fii da nga lu mat naan tamit kër ca gannaaw tàmbali di génne seen kaw la Cheikh Fama Kane Ndiopom moom Baye Mor Kane Ndiopom di daan def lu mu jëmbat mu dund baykat yi Diop Mbacke Bawal sëñ Thierno Ngora Diop sëñ Baye Guèye Pane ñi daan ko defal ci soxlaam soxna Pane Guèye mooy saako ba borom magasin bàyyi ma dikkee jeng tiib bàyyi ma jóg tiib bàyyi sàmm faal ak Cheikh Saay sëñ Cheikh Jeng ñu Tappale Cheikh Jeng Tappale amoon ak Cheikh Jeng ma ndugg mbuub ak bàyyi Cheikh mbuub borom tengaade ba tool bi ñu daan doyal sëñ Basiru jëwiñ na yor tàngaayam bi ci saa yi ak ci baat yi sëñ Ibrahima maa ngi sëñ Balla Kañ sëñ Modou Fall Jigal sëñ Ibrahima Cissé sëñ Gora Seen sëñ Modou Gorel Guèye Baye Ndiaga Ndiaye moo doon Baye sëñ Afe Ndiaye sëñ Abdou Salaam Amma Serigne Diaw Baye Serigne Diagne kenn mënu leen a lim kenn mënu leen a lim njabootu sëñ Basiiru gi ñooy toog lim wër ko muy jàmbaar ci saay ak ci baatin waaye sëñ Xaadim dana am ma la wax yaag sëñ Moussa Nabi danaa la woon kayit woon ngeen àggaleel ma ko may itam sëñ Moussa Mbakke sëñ Basiiru daa bindoon daa waxoon sëñ Badara Gueye sa way jur ne ma jox ñeenti parcelle man lañ ñu nañ ma dakkal ñeenti parcelle nañ ma dakkal ñeenti parcelle ma def ko genn kër lenn ma def ca daara loolu suñu Moustapha Sy bu santaane woon waaye jamono yooyu far sa way jur wàcc ab liggéey mhm. kay ko nag danaa waxoon danaa xool sëñ Moussa Dagana ndax moom moo fi sëñ Moussa tey yow yaa fi bàyyi ko dem liggéey maa ngi sant ñëpp di baal wax ñëpp di baal àq ñëpp yàlla na su borom boo jéggal yàlla na ko teewe ay at i at li sëñoon taxaa wax rek yàlla nu yàlla moo di jéggal bu fi jógee daal yàlla moo dese benn bakkaan te sëñoon taxaa yàgg fi ak ak tamit yi de ak njaboot bi ak bi yëpp ñoo ngi sant ñëpp di baal wax ñëpp salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu jërë ngeen jëf ngeen baal yaakaar yàlla ne bu ngeen di nuyu dafa dem yarwaay loolu yàlla ci Kufa euh, loolu monsieur Moussa ak yarwaay yi am na ko loolu monsieur Moussa ak yarwaay yoo xam doom dafa dara mu ñëw ba ci yoon bi kërëme waaye na mi ngi leen di doon tuddee ak cant ak ngërëm ak liggéey ñu ci ndigal bi ñu dox ndax ndigal bi suñ manee danañ ko def buñ mënut danañ ko def ndax loolu ñu boole ñu ñu ko dox waaye yéen wax dëgg yàlla amul seen pay yéen a nu dimbali yéen a tax demul fenn lebiwuñ kenn ñaaniwuñ kenn suñu soxlaa ngi faj te seeni ñàkk la jóge waaye sant nañ suñu borom sant sëñ Tuubaa mi leen ci xiir ngeen di ko def sëñ bi dafa ma saam ganum naar yabal ko ci sëñ Aliou Touré ne na ko ko teralal ñetti téeméer ba soxla mu ñëw mu jox ko juróomi téeméer sëñ bi woo ko ne ko lii nga def loo ci jub mu ne ko ñett yi nga ma digal ñaar yi maa ko ci teg ñaaraatoo sëñ bi ne ko waaw góor boo di jàmbaar mooy jël sa alal joxe ko ngir yàlla daal di ko ne xeex ak xuloo lu buute rek la lu buute waaye jël sa alal joxe ko ngir yàlla moo di jàmbaar loolu sëñ bu baax te yéen loolu ngeen def te alal ji ñuy joxe ngir yàlla alal ji ñu ko jaare ci sëñ Tuubaa moo gën kon seen i yow kenn xamu ko sëñ démb damay tiim di jàng xasida gi ma doon jàng ba yem ci bëy boo xam ne fii saa see rek sama xel dafa dem ci yéen. Mm-hmm. wali yahab bi kulli harfin minha euh, jamaatan xaadimatan rusul araf yii ma bind ma may mbooloo moo ciy liggéey mm-hmm. ma ci yemee rek xalaat naa ne fulku bi nag du ñuy toog di ko jàng rek seen tubaab dafa yaatu dënn mm-hmm. suñu borom dafa dilaté. fàttali mm-hmm. ko moo ko wax sabri ya masruuxul wax bi yet baax sama dëng yàlla da koo yaatal mooy ñëpp ci xaj bawul kenn moom suñ tubaab mooy ku beddiwul ku yàlla nit bërki dem suñ mun a ngay jàng na ko ci tënk yooyu aslih umuuri wa umuura sahbi summa umuural muminina rabbi kooku bërul kenn tasaam wax tolérance bi am dëgg-dëgg te am jëriñ suñ tubaab la ko yàlla yow yàlla yéwénalal sama mbir yéwénalal mbiri ñi ma àndal gis nga tàggal ruus bi sëñ bi ko xam li muy def kii war a jiitoo jiitu ka ca war a dox yéwénalal sama mbir yéwénalal mbiri donk yi ma àndal yéwénalal mbiri jullit ñi te loolu am na preuve ci ne moo jabooti ñëpp ku yàlla dimbali nangu ko wax nañ ma ne moo Maodo Touré ci waawoon ñi nelaw ko am na koor yoo xam ne moom seen Cheikh Gaynde Fatma ñoo daan woori fii jël seen Cheikh da koy wóolu kon kii dawandoo soixante dix huit la ci ñaata ñeent fukki at ak naaga ñu ngi fekk may jàng alxuraan wala ne ci sëñ bi di yenuy bool ak def yëpp mm. donc dawandoo wuñ quarante quatre waaw dawandoo wuñ sore nañ seenu ma ko loolu muy ko suñu borom dimbali mu am yeneen cër nag cër yoo xam ne nag dañ fekk ko ci amul kenn koy jàng xasida ko am mooy sëñ Moussa da koo xool ba seppali ko ne ko yow bi ñu lay bind xasida sëñ Bamba ya tax kooku kenn compétit na ko kooku moom mm-hmm. dañ nangu ni suñu borom dogal yàlla lay dogal lu ko soxla li ko dogalee lu ko soxla kenn daw dowuta waaye nag alhamdulilah rabbil alamin am na course boo xam ne boo ci mënta bokk bu fekkee bu ñu jeexoo ci course bi seen lu sa tànk gàtt gàtt war ngaa sant yàlla. war ngaa sant yàlla bu alhamdulilah rabbil man doomu nekk moom ko ne ci ci kër gi. waaye bis bi may woo classeur bu mel nii laa bokk dem ne jëm néegam. na ma nag amul gone bu ko gën a jege ci kaw so Moustapha Mbaye man dama ci seen. amul kenn gone bu sëñ Moustapha Massa yor nga gën maa jege sëñ Moustapha amul. jëmm bu fekkente ne bi balaa tëdd yaa koy bës hmm. bu jógee ataay ji mi naan yaa ko koy jox hmm. oto boppam yéen a koy bokk hmm. mu def la secrétaire am nga koy jëlal añal ak reeram di ko defaral néegam kooku kenn danu ma ko jege ma ko jege alhamdulilahi rabbil alamin mu woo ma bokk classe bi mu ne ma doyoo ma la bi ma taxaw mu ne ma damaa bëgg nga def ci suñu Abdul Hakim su ngoonee nag damaa bëgg nga bokk ci ñuy jàng téere bi ma tiit tëdd ci saal bi ci digg bi nelaw monsieur Diouf li wax nii du ko doon man kii musulman gis may fooyee xasida wala dara ngay dem ci sëñ Bakki bi rek ma ñëw sëñ bu gën maa tiit jaaxle na moom it xamee wu ma woon loolu li ma xamee woon mooy damal wooy sëñ damal wooy sëñ bu taxaar damal yóbbu añ bi hmm. loolu la xamoon ma ñëw mu ne ma ah sëñ bi laay sëñ bi nee na nga jàng ay eh, jël dugg ci mbaar bi ñu ñëpp ñu xoolante ndax naa leen. waaw ca guddi gën. dinaa sant sàmm. waaw waaw gis nga est-ce que. sëñ Moussa Nawel moom moo ko nekk. mu ne ma ca guddi ga ataaya yi def yaa ko tax nga li ra woo ñoom ñëpp ñu ñëw toog mu ne leen mu ngeen gis ne sama saabees bi nag. saabees bi waaw kenn ku ne ci ñoom dëggalal ko. sant naa sant ko. waaw waaw alhamdulilah rabbil alamin am na liggéey boobu bu doon benn fan nga ca tàbbi sax santal yàlla. dëgg la. sëñ Sakho wax na ma ko bëgg am na ma da ngeen a war a sant yàlla bu baax a baax a baax hmm. ndax liggéeyu sëñ Basiru bu sëñ Tuubaa nangu ci la leen yàlla taw fexal ngeen tàbbi ci hmm. muy liggéeyu sëñ ah, yéen mënuñu leen a fay suñu hmm. xaadim sëñ Moustapha sëñ xëy nee na ci ni café yi ci ni meewam yi naan bu neex ba fa def nekk nee na léegi sëñ Tuubaa ne xaaral ma defal leen lu dàq dox ne jamet ci seen biir <laughs> moo dàq dox ah, waaw waaw kon loolu bu fekkee ca Gabon la ko defee woon ñëw fii ñaari xasida yooyu ñaari mat yooyu mu yaa xayra dayfin ak yaa bu seet mu woo sëñ Mahmoud Fall mu ñëw yaa xayra dayfin bi weer wi feeñ ko sëñ bi wëj yaa bu saaraati bi weer wi tàkk sëñ bi di ko déglu ba mu ba mu jàng ko ba jeex sëñ bi muuñ di ree addina ne ko gis nga ñaari xasida yi ma fekk fële di jëlale naa jamono yi ma koy def timu ñam ma dugal ko ci sama gémmiñ waaye ci mu sama bët bu ci te fa mu nekk ma ngay lekk ma ngay naan waaye ci yàlla lay jóge defe naa sëñ Mountakha loolu def na ko jël bis mu toog di xalaat fu sëñ bi doon lekke fu sëñ bi doon naane fu sëñ bi rek gis bayit bi taami sharabi maa libaasi bi jaayihi atat nii bi laa kasbi ndarallahi bil bas sama ñam li may sol li may naan ci daraja yonent bi du ma ko fàggu yàlla ma ko jox fi ma ne te loolu li koy firndeel mooy sëñ Modou Lo Dagana bi mu doxee ba sonn egsi fi moom sëñ bi téye na ci loxo bi bés ko ne ko parce que bi day na lool xanaa sonn nga rek mu ko waaw xiif nga ne ko waaw ko ndab nekk man net nañ yàlla alhamdulilah sëñ Moussa yàlla na suñu borom yàggal si yow taxawaay jaay nekk ci buntu yi nekk ak ci diggante bi ñu mm-hmm. sonn nañ lool ndax ku ne lañ tase te dëkk bi day dëkk doy waar. ñu tànn. danañ sonn lool ci léeg-léeg nga gis. nit ñi jéem a. gi teg ko fi barab mu fi. mu fi waay. yooyu ma àndal gis nga tadarus bi sëñ bi ko xam li muy def ki war a jiitoo jiitu ka ca war a dox. na leen sama mbir na leen mbiri donk yi na leen mbiri te loolu am na preuve ci ne moo jaboot li ñëpp bu yàlla dimbali nag moom wax nañ ma ne moo Maodo Touré ci waawoon ñu nelaw ku am na koor yoo xam ne moo si Cheikh Gaynde Fatma ñoo daan woori fii jël si Cheikh da koy wóor mu ñëw nekk ak moom ba ko di jeex ak ni ko sëñ Moussa Bassirou mu jawoo fii sëñ Moussa dama ko wooyi ci waawoon booba man mii toog ak son bu Mbàkke doomu sëñ Moussa ma ca sàggata moo taxoon sëñ bi wóoroo ngir buñ weeroo ba waree mu yóbbu ñu ñu jàngi arab parce que boobu jàng nañ majalis ba sëñ bi tey na ko fi ay fan mu yàgg na sëñ mu taxaat naa ne attaay ci sëñ bi bu guddee mu dëkk soo ko mosaan a fekk sëñ bi mu boof da jàpp ne kii ci bëgg néegi sëñ bi la ci fekk ngir yar bu ko yàlla jox ak i teggeen sëñ Tuubaa mooy bi boot ñëpp li ko yàlla jox ñëpp xaj te mu xajal ci ñëpp la ko yàlla kon nañ sant yàlla bu baax a baax xasida nag moom du ma sori furgu bi ñuy jàng moom ma ci sori ndax lu ma ci dégg dañ ma ko nett hmm. li nag kenn netti lu loolu moom maa ko xam li ma waajee laajee ba ci mu ne ma loo yëg ci téere bi dama ko ne loolu am na ci lu ma mën a wax amul am na ci lu ma mën a wax ndax suñu borom nee na ci alxuraan balil insaanu ala nafsihi basira nit ku ne yàgg dafa soxla waaye gis naa ay téere bi def ci ma féewal yi yëg naa defar gi am na lu ma jomb loo xam ne téere bi tax ma jomb kon li téere bi def man li ma ci mën a xam mooy ni may dund nii waaye li la te loolu sëñ Tuubaa mu rek bu ne nag la sëñ Moodu Moussa wax sa na ko gaawu ko ngeen maanu te tëj mu jox la sa jaabi gaal ak sa gaal nga woon ko ginnaaw dem fa ndokk bi nga xamee ne sëriñ Tuubaa rek egg fi alhamdulilahi rabbil alamin yàlla mu yàlla taw feexal ñu ci bëgg te bëgg ci dëkk ñu koy gën ci dund te dund ko ci dëkk sëriñ Basiru kenn mënu ko xam na sëñ Tuubaa xam na fi mu koy jaar bu koy dàq xam na fi mu koy dàq te jam na ko téere bii mu ci wax leer na am na ci loolu jotaay yoo xam ne ñi ko daan wax ak sëñ Moustapha dama ko daan fekkee te waxi sëñ Moustapha ma gën a doy di waxi junu boo xam na moom yàlla sëñ nee na sëñ Basiru moo xalaatal boppam ndimbal ni ko sëñ Moustapha am nañ taw fekk ku xool koor yi ak koor yi sëñ Tuubaa doon def kam woor ba wori amoo ganaar boo mën a génnee murum ko dox sax doo ko ci xobu garab garab yi ngay ngay ngay muucu nga ngir bañ a def misaal ngir bañ a def misaal mu woor ba wori li may wax sëriñ Fall bu sa Tamba buñ dund ko moom soxna maa ngi soog sëriñ Fall bind na ko sëñ Moulay Boussa woy na ko sëñ Moudou Khari Boussa sëñ Tuubaa nettali na ko mu koy nettali da koo wóolu mu ñëw mu ne ko dama lay ataayaat ataaya ji nag ataaya sant yàlla la dara waru nga ci lu naan. li may sant yàlla mooy damaa defar bàyyi ba du yàqu ma defar doom ba du yàqu muy sëñ Massamba Faty mi bàyyi moom sëñ Mbacke Moussa bokk ndey moom sëñ bi dafa ko nekk woor koor bu metti gisul ku dul yàlla boromam bi maanaam ngir bañ a def misaal bañ a woor mu wuy day muutu xob bi garab bi li mu waree ba waree mu ne suñu borom li ma li ma def naa ko li ma sunta sunna santoon def naa ko li ma man nangul ma ko li ma yéene nangul ma ko li ma jëf nangul ma ko muurum koor nag aw ma ko amoon it juróom-ñett ñi nga wax ne nañ leen ko jox gisuma leen fi daal di jël xat aflaha man tazakka taalif ko muy xasida muurum koor ci moom. ramadaaniyaat yooyu mu def Gabon bi mu ñëwee Njaaréem sëñ Basiru bi di ne kooru Njaaréem ci sëñ Touba shahru aydin lahu koor feet na ci moom ndax xéewal yi tuur na moo ko Cheikh Ibra Fall yaa ngi kenn mënu ko évaluer ku yàlla bind mënu ko yàlla sàkk weer yàlla tax amuñu ci soxla xamuñu jëm li jëntiwuñ ko moo sàkkuñ ko ko def yéen ñi jàng su ngeen ko daan su ngeen ko daan su ngeen ko doon évaluer en en espèce suñ yombul ba xarit mënu leen ko évaluer en espèce pendant un mois ñaata ganaar ñaata nen waaye ndawal bu ñuy def naaf Sëñ Tuubaa rek ko am comme que ok mu tuuru ba bu toog jotee na fi. mais nan mu na ak si yàlla si sëñ Basi mooy. bu toog jotee mu ne nañ dem topp tooxu rabaa ñu tumurante leen but ba but. nee na ci ni café bi ci ni meewam yi naan ku neex ba fa def fi nekk si nee na léegi Sëñ Tuubaa ne xaaral ma defal leen dàq doon ne jamet ci seen biir. <laughs> loolu dàq doon waaw waaw.